ma delloo jël man saa xalim sot ko sëpp ko ci saa daata bindal seexu naa baara tagg ko ma dellooti jël man saa xalim sot ko sëpp ko ci saa daata bindal seexu naa baara tagg ko te man bindi way yuy jëm ci sëñ baaralaay sago ndebuur yàlla moo def man ma yaakaar ko sopp ko te sopp ko moom sëñ baara daa war ci ab julit moom ku noonog moom bu deewee ñu ko andax yéen du ngeen màggal ki tax mag ñi am ngërëm ci sëñ bamba bis bam fee ñe dunyaa ta top ko andax yeen du ngeen ki tax mag ñi am ngërëm ci bamba bis bam fe ñe dunyaa ta top ko te señ bara bam la bamba wo ñoñam ni len kan gi kat seenu um ngërëm moy ki andi ko takat jekulala ibra faalang fa wër di maaj tanaa mag ñi aadoom tey du naaj yàlla def na ko takat gëkku loole ibra faalang fa wër di maaj tanaa mag ñi aadoom tey du naaj yàlla def na ko sëriñ bamba day am gan tagan googa na ab ndëggoom teg ci kaw biib jant kaay nu seenu ko bi baara feeñee mag ña xam lam ca jubluwaan sëriñ baara jar naa fonk fonkal te moytu yépp génnul yàlla mooy mbooti suñ boroom te am ci xayrul xalxi kuy noy seenu ko yépp génnul yàlla mooy mbooti suñ boroom te am ci xayrul xalxi kuy noy seenu te yen bim yenu seex bambanim di se ndéem keneen la woon faw mu gor mbaa diir bu néew yan wa rëccu te yan bim yanu sëñ bamba nim di se keneen la woon faw mu gor mbaa diir bu néew yan wa rëccu kudul bamba lim am xaaj ba xaajaat ba doo am te guuxum ndoxam nandal na duniyaa ba ko borom jaam ñi baara bam neex ko def ko ab xarit dellu jël téeréem xuraanu may ko ko